yi doon ci góor dañuy fukk lañ waaye da ngay wax ne fukk lañ yoo xam ne boo ko feccee muy fukk ak juróom al ibnu doom bu góor wadul ibni ak doom bu góor yi doom bu góor maanaam doom bu góor day doon yaay ja mbaa bàyyi sët bu góor bàyyi ko doom ju góor moom it noonu day doon maamam mi doom ju góor doom ju góor wa in safala ak doon te suufe woon na maanaam lu mu suufe suufe mooy doon te sëtaa taat lay waaye diggante ak maamam ji ñu doon rek kenn doxu fi rek du tee mu doon wal abu ak baay nga baay day doon doom ja wal jaddu ak maam bu góor lil abi ñeel wàllu baay wa in xaalaa ak doon te kawe woon na maam ju góor ci wàllu baay mooy doon maam ju góor ci wàllu yaay moom du doon waaye maam ju góor jur baay nag dana doon sët ba doonte sax du maam maamaat la wala maamaataat la waaye diggante ba sët bi ku gën a jege nekku fa rek dana doon wala axu ak mbokk mu góor kooku nag moom day yett mbokk mu góor mi nga bokkal ndey dong ak mi nga bokkal baay dong ak mi nga bokkal ndey ak baay yett yëppay doon boobu ñu axi ak dooyu mbokk mu góor dooyu mbokk mu góor ñaar la ndax yaari mbokk yi nga tudd léegi mooy mi nga bokkal ndey ak baay ak mi nga bokkal baay dong ku ci nekk doomam day doon ka nga bokkal ndey dong nag moom doomam du doon kon jàppal ne mbokk yi ñett lañ dooyu mbokk yi ñaar lañ wa in baxut ak doom te sori woon na maa dooyu mbokk lu mu sori sori rek waaye buñ ko dee seet moo ki muy bëgg a doon rek dooyu mbokk la ci moom rek sori ba du ci dara dama am ko gën a jege rek mu gën a doon wal xam ak bàyyi tax bàyyi tax ñaar la fi mu nekk bàyyi tax mooy bàyyi bu ndaw ki bokk ak sa baay baay mooy kenn ki ak ki bokk ak sa baay ndey ak baay ñooy ñaar la ki bokk ak sa baay ndey dong nag génn kon jàppal ne sa baay bu ndaw bi nga xam ne moom sa baay ñoo bokk ndey ak baay ak sa baay bu ndaw bi bokk ak sa baay benn baay ñooy ñaar ñooy doon ak seen doom nag moo tax mu ne wa bunul xam mi ak doomi bàyyi tax wa in baxoon ak doon te sori woon na ñaari bàyyi tax ñu nga weesu léegi bu ñu fa nekkut seen doom ñooy doon ñaari bàyyi ñooñu kenn ku ñu nekk doom da nga koy tudd wa zawju ak jëkkër jëkkër day doon jabar moo tax wa mawla ni amati ak sang ba xewle ngor mooy jabar ku goreel daal moom moom moom kilifteef ga nga xam ne kookee mu goreel gor la ne moom waaye bu faatoo te bayul kenn ko war a doon moom mi ku goreeloon moo koy doon bu fekkee ñam bàyyi duñ jeex alal duñ jeexal alal nga xam ne buñ fabee seen cër day des kon moom mi goreeloon mooy jël des wa kon booy bañ a wax ne doom ji góor sët bu góor bàyyi ko doom ji góor ak baay ak maam ji góor ci wàllu baay ak mbokk mi nga bokkal ndey mu góor ak mbokk mi nga bokkal baay ak mbokk mi nga bokkal ndey ak baay nga ne ak sa doom mbokk mi nga xam ne yaag baay mi yéen a bokk benn baay ak sa doom mbokk mi nga xam ne yaag baay mi yéen a bokk ndey ak baay ak sa baay bu doom bi nga xam ne mook sa baay ñoo bokk ndey ak baay ak sa baay bu ndaw bi nga xam ne mook sa baay ñoo bokk benn baay nga wax seen ñaari doom nag ne sa doomi baay bu ndaw bi nga xam ne mook sa baay ñoo bokk ndey ak baay ak sa doomi baay bu ndaw bi nga xam ne mook sa baay ñoo bokk baay doom ko dee mu fukk ñett nga rek nag jëkkër ndax day doon jabar ak góor ga xewli ngoro mooy ka goreel nag niñ ko waxee woon léegi muy fukk juróom wala yarisu du doon ñu ne nisaay ci jigéen ña xayru sabahin dara juróom ñaar jigéen ñi juróom-ñaar ci doon waaye boo ko feccee muy fukk albinti doom bu jigéen ñi ndigg dañu jublu rek doom bu jigéen bi nga xam ne yaa ko jural sa bopp lañ jublu ci doom bu jigéen ndigg wa bintil ibni ak doom bu jigéen doom bu góor maanaam sa sët bu jigéen boo xam ne daa bàyyi ko ci sa doom bu góor man ngaa takk foofu ne sët bàyyi ko sa doom bu jigéen moom du la doon benn yoon mooy bu góor muy bu jigéen bu waaye sa doom bu góor moom ñaari sëtam yëpp ñoo lay doon ndax wañu woon nga fay bu góor ba te bu jigéen baa ngi nii wal ummi ak ndey wal jaddati ak maam mu jigéen wal uxti ak mbokk mu jigéen wal zawjati ak soxna wa mawlaati niamati ak jigéen ju xewle ngor boo koy wàññi ni mu ko wàññee nii moom doom bu jigéen benn sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor ñaar ndey ñett maam mu jigéen ñeent mbokk mu jigéen juróom soxna juróom benn ak jigéen te goreeloon muy juróom ñaar waaye nag di ko def fukk moom mooy maamu jigéen mais ñaar la maamu jigéen ci wàllu ndey ak maamu jigéen ci wàllu baay kon nga dolli foofu benn mu juróom ñett soo ñëwee fii ci mbokk mu jigéen benn la ci wàññi te ñett lay doon te xam nga mbokk mu jigéen mi nga bokkal ndey dong kenn la mi nga bokkal baay dong muy ñaar ak mi nga bokkal ndey ak baay mu ñett kon loolu moo koy def fukk ndax mbokk yi kon benn la ci wàññi te ñett lañ maamu jigéen benn la ci wàññi te ñaar lañ kon nag boo jëlee fee benn jël fee ñaar mu daal di nekk fukk mu tàmbal nag nit ñi doon ne famille rasu zawji donob jëkkër mi ne sawjati tukkee ci soxna in lam tatruk dem bàyyiwut wala dan doom wala wala dap nim du caageen doomi doom bu góor am nisf mooy genn wàll fa in tarakan dem bàyyi na nag wala dan doom aw wala daplin wala doomi doom ju góor min fu tukkee ci moom jëkkër ji aw min xëy di wala bàyyi ko ci keneen ku bokkut ak moom fëlëxoo ko ñeel na jëkkër ji arrobu xu kaar donob jëkkër jabar moo gën a gàtt moom lañ njëkkee jàppal ne jëkkër moom ñaari doon ñu la mën a am ci soxnaam bu fekkee soxnaam faatu na te bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul sëtaat kon foofu la jëkkër di ëppalee mooy buñ ko defee ñaari xaaj alal ja mooy moom genn wàll ga su fekkee soxnaam soo see faatu bàyyi na fa doom ba sët nag ba sëtaat foofu la jëkkër di gën a néewlee kon su boobaa ab kaar lay am kaar na mooy genn wàll ni sif kaar mooy boo ko defee ñeenti xaaj mu tegg ci benn ni sif moom mooy nga def ñaari xaaj mu tegg ci benn kaar nag moom mooy nga def ñeenti xaaj bu tegg ci benn xam ne kaar mooy xaaju nisif kon bu fekkee ne soxnaam si bàyyi na doom doonte doom yi doomi njaaloo la it du tee mu yàqal ko nisif ba mu yow ci rubb moom jëkkër ji bu dee doom ju am keneen amu ko moom beneen jëkkër la ko amaloon it ba tey noonu la wa taris dana doon xiya moom jigéen ji min fu ci jëkkër ji arubu xa kaar in lam yàkkun dem nekkul laxoo di ko ñeel wala dun doom wala wala dub ñun du caageenu doomi doom ju góor fa in kaana bu nekkee loxo di ko ñeel wala dun doom aw wala dub nin wala doomi doom ju góor min haa tukkee ci soxna si aw min xëyri haa wala bàyyi ko ci beneen soxna fa la haa kon ñeel na soxna si ak bu ëppee benn ak tumun tumun kon soxna moom muy benn mu ëpp benn ci yam lañ war a doon seen jëkkër daal mooy fekkee seen jëkkër bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul sëtaat su foofu la ñu ëppalee ñoom kaar la ñu am bu dee benn soxna moom rek moom ko bu dee ay soxna ñu seddoo ko bu fekkee seen jëkkër ji faatu nag bàyyi na doom mbaa mu bàyyi sët mbaa sëtaat nag foofu la soxna yi gën a néewlee bu dee kennoo bu dee mbooloo wala bu dee ñaar foofu sumul la ñaam sumul mooy ab juróom-ñetteel bu ñu defee àll juróom-ñetti xaaj benn lañ cay teggi bu dee mbooloo seddoo ko bu dee kenn wala ñaar ba tey noonu sumul nag mooy xaaju kaar mooy xaaju rubum fi mu toll waaye moom nag bu fekkoon jëkkër ji bàyyi na doom mbaa ab sët waaye day doomi njaaloo moom di yàqal soxna si kaar foofu la ñu wutee waaw xam nga jëkkër moom bu soxnaam bàyyee doomi njaaloo dana ko yàqal nisif ba mu ñëw ci kaar waaye soxna moom bu jëkkëram bàyyee doomi njaaloo mbaa sëtum njaaloo du ko yàqal kaar ba nga xam ne moom la war a am foofu lañ teqali ko wa miiraatul ummi doonam ndey dafa def nag minib nihaa te ibni firi doom bu góor mel ne kon la muy doon ci doom bu góoram day wuuteeg la mu doon doom bu jigéen te ñëwee moo képp su ne woon nag min wala dihaa rek walat moom day yóbbaale góor a jigéen waroon gën a matale wa tax faral bi naa la law xaala min waladiha la kaana ahsan li yashmala azzakara wal unsa mu donop yaay ca doomam daal ak sulusu mooy sulus sulus ñu koy wax ceer moo di am ñetteel illa yetruk ndem bàyyiwut wala dan doom aw wala dapp ni wala doomi doom awis ni ni wala ñaar ñu ixwati ci ay mbokk maa kaanoo lu ñu mën di doon fa saa yi doon topp lu ko ëpp waaw bu fekkee ne daal léegi yaay ji doom daa faatu moo xam doom ji faatu góor la mbaa jigéen waaye doom ji faatu daal moom bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët bàyyiwu fi lu mat ñaari bokk kon foofu la yaay di gën a bari lee lu mu am foofu lay amee ceer ceer mi ngi bàyyi ko sulus mi ngi bàyyi ko salaasatu ñett alal ja boo ko defee ñetti xaaj benn bala yaay jey moom foofu lay ëppalee nag moom xanaa mu génn ci ñaari masala yoo xam ne yaay ji doom dana faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul lu mat ñaari bokk te du ko tax am sulus déedéet foofu yaari masal yéene moom nga teqale ko ci jàpp ko bañ koo jaawale mooy illa fii faridatayni dara ci yaari masala benn bi mooy fii sawjatin ci soxna wa abooyni ak ñaari waajur fali sawjatin ñeel na soxna sa arrubu kaar wala ummi ñeel na ndey sulus ma sulus bi la nga xam ne wama la nga xam ne baqee des na lil abi ñeel na baay benn masala bi mooy soxna nekk fi ak ndey ak baay kon xam nga foofu soxna ab kaar la fi am ndax dégam doom amut sët amut war na am kaar kon bu doonee ñeent bu soxna si jëlee benn muy kaar ñu xane ko ñett moo des te kii mooy ndeyam kii mooy baayam te kii mooy góor góor moo ëpp daraja kon na góor gi tegg ñaar ñi yaay ji tegg benn bi xam ne kon boo seetloo li baay bi am moom genn wàll ndax ñeent la woon te jël na ñaar ña boo seetloo li yaay jël nag lañ koy tuddee sub sub la des may gannaaw bu waaye soxna si génnee la des waaye fi mu nekk ci dëgg-dëgg ab kaar la fi mu toll te xam nga boo ko dee seet moom soxna ñoo tolloo képp fi mu toll soxna si ak yaayu ki faatu yooyu moo képp kenn ku ne benn nga teggi ci ñeent ñi mu dib kaar waaye dañ ko tuddee nag sulus su ma baqee sulus la des gannaaw bi nga génnee cëru soxna sa mooy benn masala bi ba ci des nag mooy woo fii sawjin ak ci jëkkër wa aboyin ak ñaari waajur fali sawji ñel na jëkkër ja annis fu genn wàll ga wali ummi ñel na ndey ja sulus ma sulus la nga xam ne baqee des na wama la nga xam ne baqee des na lil abi ñel na bàyyi ba masala ñaara li mooy jëkkër fi nekk ak ndey ak bàyyi xam nga jëkkër moom ndegam doom amul sut amul war na am genn wàll kon na nga koy def juróom-benn xaaj alal ji ñett ñi kon moom nga jox jëkkër muy genn wàll ndax juróom-benn xaaj boo teggee ñett ñett ñi genn wàll la bu ko defee mu des ñett ñett ñu wax ne kee mooy ndeyam kee mooy baayam kon na bàyyi bi jël ñaar ñi ndey ji jël benn bi xam ne boo dee seet ndey dañuy wooy lam jël suñu sut la des gannaaw bi jëkkër jëlee wàllam waaye ci dëgg-dëgg ab sudus la ab juróom-benneel la ndax maanaam juróom-benn xaaj rek nga def mu teggi ca benn kon yaari masal yomb nañoo takk ndax benn bi jëkkër laag ndey ak baay benn bi jabar laag ndey ak baay yaari masal yi moom boo seetloo yaay ja doomam faatu na bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul lu mat ñaari bokk te taxul mu am sulus dañ ko jox sulus suma baqiya boo seetloo fenn fa lam teggi ab kaar la ñu tuddee ko sulus suma baqiya boo seetloo fenn fa lam teggi ab sudus la ab juróom-benneel la dañ wooyee ko sulus suma baqiya ba tax ma naa fali sëw ji ñal na jëkkër ja anis fu genn wàll ga wala ummi ñal na yaay sulusuma sulus la nga xam ne baqee des na wama la nga xam ne baqee des na li abi ñal na bàyyi wala xaa ñal na yaay nag fii xaw di zalika ci dud loolee ak sulus sulus illaa mandare la nga xam ne naq saxaa wàññi na ko ko alxawlu somp ga daa wax ne boo xasee génn yaari masala yi moom faaw rek yaay war na am ab ceer bu mat ak sulus bu mat lu may na nga xam ne somp da caa xew somp nag mooy bu seetloo cër yi kenn ku ne dama war a teggi dana am ku manqué kon bu kenn ku ne amee la nga war a am dana am ku dana am ku amul dara mbaa ku manqué su boobaa ko nañ koy somp ba nga xamee ne kenn ku ne da nga teggi lu yelloo la nga war a am rek te du ci àgg. man nga koo misaale bu fi yaay nekkoon ak jëkkër ak mbokk mu jigéen mbokk moom ndeeg baay jëkkër daa war a am genn wàll te mbokk mu jigéen moom mbokk mu ndeeg baay genn wàll la waram fi mu toll xam nga yaari yaari genn wàll bu génnee ci àll mu jeex tàkk. waaw kon nag xam nga yaay moom war naa am foofu sulus am ñetteel boo seetloo masala mi juróom-benni saam la war a doon ndax ndegam jëkkër ak mbokk mu jigéen ñoom ku ne kenn wàll la soxla moom boo defoon ñaar rek ku ne mën a teggi benn waaye nag yaay moom daa war a am sulus am ñetteel daa bëgg kon nga def ñett mu teggi ca benn ñaari lim yi nag muy trois ak deux dañoo safaanoo da ngay jël benn bi multiplier ci benn bi mooy faaw nga wax trois fois deux muy six wala nga ne deux fois trois muy six kon ci saalu masala mi juróom benn la waaye seetlu nga ne daa manqué lool ndax boo joxee jëkkër genn wàll muy ñett jox yaay ñaar muy sulus ndax xam nga juróom benn ñaar moo di ab sulusam kon juróom dem na mu des benn te xam nga ne mbokk mu jigéen mi bokk moom ndey ak bàyyi fii mu toll moom itam genn wàll la war a am loolu mu andi sompoo gi kon dangay seet kenn ku ne li mu war a am nga def saam yu toll noona jëkkër bi nga defee juróom benn waroon na cee tegg ñett muy ab nisif yaay bi nga defee juróom benn war na cee teggi ñaar mu di ab sulus mbokk mu jigéen mi ci ndey ak baay moom itam moo jëkkër ñoo waroon tolloole bi nga defee juróom benn waroon na cee teggi ñett waaye gis nga ne kon saam yi manqué na ñaar ci boo seetloo kenn ku ne li mu war a tegg ci saam foofu nag kon alal ji nam toll woon mënoo koo yokk waaye saam yi nga yokk bañ koo def juróom benn def ko juróom ñett soo ko defee juróom ñett jëkkër teggi ñett muy nuru genn wàll mbokk mu jigéen ndey bàyyi teggi ñett muy nuru genn wàll yaay teggi ñaar muy nuru sulus ndax nee nga bu doon juróom benn mbëgg caa teggi ceer ñaar lay doon loolu nag moo tudd ak somp lu mel noonu nag moo koy tax ndey manqué le sulus waaye lu bokk ci loolu rek moom boo boo weesoo yaari masala yi war naa am sulus bu mat ilaa ñekkoon dara ba dafa nekk li may yiti ñeel néew ba wala dun doom aw wala dub ni wala doomi doom awis naa ni wala ñaar min ixwati ay mbokk maakaanaa lu ñu mën di nekk falaxa kon ñel na yaay a sudus su sudus xii na isin ci waxtu woowee dalay wax nag bu fekkee ne léegi ndey bi doomu faatoo bàyyi na fi doom mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk foofu la ndey di gën a néewlee foofu moom ab juróom benn lay am boo ko defee juróom benn xaaj benn la cay teggi kon jàppal ne koo xam ne doomam faatu na waaye doomam ji faatu bàyyi na fi doom mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk alal ja boo ko defee juróom benn saam benn nga ko ci jox ñu koy tuddee sudus mu bàyyi ko ci sitatu bi fi juróom benn kon doomam yaay boo koy takk ci miraas nga wax ne yaay daal fekkee doomam faatu na muy góor muy jigéen te doomam ji faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul lu mat ñaari bokk kon yaay foofu lay ëppalee war na am sulus ak ceer ñetti xaaj mu teggi benn lu may nag yaari masala yoo xam ne yow mën naa takk ndax mooy masalam jëkkër ak jabar yoo xam ne ku ci nekk daanu ndey ak baay maanaam masalam jëkkër ak ndey ak baay ak jabar ak ndey ak baay yooyu yaari masala moom du fa am lu mat sulus te takk-takk du xattutoon foofu nga tekki ne nag bu fekkee ne doom nekk na fa mbaa sët nekk fa mbaa lu mat ñaari bokk nag jox ko moom yaay mu war a am sudus ab juróom-benneel loolu rek mooy takk-takku miraasum yaay waa mii raasul abi doon bàyyi miñ wala di ci doomam itan farada ne wéet na warisa mu doon almaal alal ja kullaxoo léppam doon bàyyi te yomb naa takk ci miraas ñett tomb lay doon bi ci njëkk mooy su fa nekkee moom doom nga xam ne boo ko dee seet mboolem ñi nga limoon ci ñu war a doon menn moom fi nekk kenn kenn ku war a doon ku muy moom néew fa su boobaa lépp lépp lay moom rek moom jëlu sax ñu koy miraasal moom bu xamee fa alal ja tàmbalee fa mu yem rek dañ ko wax ne ko yaa ko moom mu daal jeex wayu faradu def na dogal loxoo ñeel ko maxal wala di bu ànd ak doom ak dëkkari ju góor aw wala dil ibni wala doomi doom ju góor ak sudus su sudus kooku mooy tomb ñaareel bi su fekkee nag doom bu góor xas naam baasat bu góor moom xam ne kon bàyyi moom ab juróom benn képp képp la mën a am dara dara du ca yokku ndax doom bu góor boobu bu fi nekkoon moom dong jeexal alal baasat bu góor ba kon nag foofu moom bàyyi du mën a wees sudus ab juróom benneel rek al jëpp boo ko defee juróom benn xaaj mu teg ca benn tey lam yekkul ndem nekkul loxo di ko ñeel wala dun doom wala wala dublin du caagéenu doomi doom farida kon dogaleef lil abi ñeel bàyyi a sudus sudus waaw te te joxeef man ka nga xam ne sharikahu bokkaali naag moom min ahli sihaami ci ñooñ cër ya sihaamahum seeni cër su ma kaana topp nekk loxo di ko ñeel maa la nga xam ne baqee des na loolu mooy tomb ñetteel bi su fekkee ne nag doom bu góor amut sat bu góor amut waaye bàyyi dafay nekk ak ñeneen ñi war a am cër te ñooñu kat sooy boo limaale ci doom bu jigéen sët bu jigéen ci lañu bokk waaw fi mu toll nii bu fekkee doom bu jigéen am na mbaa sët bu jigéen mook benn boroomu cër am fa ñoo yemoo dong dañu njëkk a jox bàyyi ak sudus ab juróom-benneel mu téye bu fekkee des na ñu yokkal kooku bu fekkee desul nag mu yem ci sudus ba dong man nga ko misaal tey bu fekkoon ne. doomu jigéen dafay nekk ak baay su boobaa ñoo tolloole kese ndax doomu jigéen xam nga genn wàll war a am ndax lim doon benn su ko defee boo defee juróom benn xaaj boo joxee baay benn mu téye mu sudus xam nga day desaat ñaar te ñaar yi ba tey moo ngi koy joxaat ndax daa des bu ko defee kon genn wàll la yor doomu jigéen yor genn wàll foofu daa tolloo képp rek yem ci ba tey fi mu toll bu fekkoon ne. bàyyi dafay nekk ak soxna kon xam nga soxna ab kaar lay am waaw kon léegi boo ko joxee ab sudus mu téye it bu soxna si teggee kaaram day desaat nga del ko joxaat des wa kon booy tënk miraasum bàyyi ci ngay wax ne kon daal ñett tomb rek la su fekkee moo fi moo fi nekk moom dong lépp lépp lépp lay moom su fi nekkee doom bu góor mbaa sët bu góor du mën a weesu ab juróom-benneel muy sudus bu fi nekkee borom cër nag xam doom bu góor amut sët bu góor amut borom ci rek lañu danga koy jox sudus mu téye te xaaru des ba xam bu desee nga yokkal ko des wa bu desul nag mu yem ca sudus ba nga ko joxoon kon loolu rek muy tënku mirasum baay ci miras wa miratul waladi tonab doom ak dakari ju góor jamihul maali mooy mboolem alal ja in kaana dem nekk na wax daxoo di moom rek aw ya aqusa wala muy jël maal la nga xam ne baq ya des na baada sihaami man ci gannaaw cëri ka nga xam ne maaxoo ànd naag moom min saw jëtin ci soxna wa aboyin ak ñaari waajur aw jaddin wala maam ju góor aw jaddatin wala maam ju jigéen doom ju góor moom ñi muy doon ne yow mën a takk bu fekkee ne moom rek la baayam bàyyi mbaa moom rek la yaayam bàyyi ci ko war a doon kon lépp lépp lay jël lépp rek moo ko moom kon du aajo mu wéy ko ko miraasal bu xamee rek na alal ji toll rek lépp lay jël bu fi nekkee borom cër nag moom da ngay génn cër yi nag ba mu des moom rek mu jël la ca des lépp lépp nekki bu fi nekkee soxna kon soxna ab ab sumul lay am alal ji dañ koy alal ji dañ koy jëngati xaaj soxna si tegg ca benn mu des juróom-ñaari xaaj doom ji boo dégg bu fi nekkee ñaari waajur ñaari waajur yi kenn ku nekk ab sudus lay am ab juróom-benneel kon boo defee alal juróom-benn xaaj ndey mu bàyyam kenn ku nekk day tegg benn mu des ñeenti xaaj moom mu jël ko bu fi nekkee maam ju góor maam ju góor du wees sudus ab juróom-benneel lépp ngay def juróom-benn xaaj mu tegg ca benn moom maam ju góor doom ju góor jël la des lépp bu fi nekkee maam jigéen ba tey noonu la ndax maam jigéen ba tey loolu lay doon waadulul ibni doom bu góor yi doom bu góor bi man zilatil ibni nekk na ci wàccukaayu doom bu góor isaalam yëkku ndem amut ibnun doom bu góor nee na ko amut doom bu góor waaye am na sët bu góor boo xam ne doom bu góor ama ko jur kon sëtu bu góor boobu day wecc doom bu góor xam ne bu fi nekkee jël li fi nekk lépp ci alal bu fi nekkee moom dong daal lépp lay jël bu fi nekkee borom cër bàyyi cër yi génn la des mu doon wàllam fa in kaana ndem am na ibnun doom bu góor wablatun ak doom bu jigéen digg fali zakari ñeel na góor ga mislu hazil unsayni kem cërub ñaari jigéen te wa kazalika naka noonee la fii kasratil banina ci bari doom yu góor ya wal banaati ak doomu jigéen diggéer waqi lasim ak seenub néewaay léegi sol daan danañu doon kazalika naka noonee jami xalmaali mboolem alal ja aw maa wala la nga xam ne fadala des na minhu ci moom wax daman gannaaw ka nga xam ne sharikahum bokkaale naag ñoom min ahli sihaami ci ñoom cëriya nee na bu fekkee kooka daa bàyyi doom bu góor ak doom bu jigéen bu dee ñoom ñaar dong dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn mais da nga woon góor ga muy ñaari jëmm nga woon jigéen ja muy kenn nga def ko ñetti saam boo defee ak ñetti saam ñaar ña góor ga jël ko benn ba jigéen ji jël ko. bu ñu xasee jaxasoo daal moom di góor ak jigéen mën naa am góor ña bari jigéen ña néew mën naa am jigéen ña bari góor ña néew ña ci yemoo. da ngay def rek wàññi góor ña góor gu ne nga wàññi ko ñaari jëmm bu taxaw jigéen ji ne nga wàññi ko benn jëmm bu taxaw seet nag na lim ba toll nga def saam yu toll noona soo ci àggee góor ñi teggi ñaari saam jigéen ñi tegg benn fekkee ñoom dong ñoo fi nekk suñ fi nekkee borom cër nag day génn cër yo ba noppi nag la des nga def ko noona ni kii bu fekkoon ne moom dafa faatu bàyyi doom bu góor ak doom bu jigéen wala ay doom yu góor ak doom bu jigéen soxna nekkaale fa dama njëkk a génn cërub soxna muy suwoon ba noppi nag la des nga doo ko def noona bu fi ndey bàyyi nekkoon da nga génne ndey bàyyi kenn ku nekk sudus la des nag nga jox doom ya góor a jigéen ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn boobu nag ibni doom bu góor yi doom bu góor ka ibni yi ñëw ne doom bu góor fi xadam yi ci ñàkkam fii naa ca la nga xam ne yooyu su dana ko doon way wax jiw ak la mu yiir daa wax ne sët bu góor moom day wecc doom bu góor koo xam ne amoo doom bu góor waaye am nga sët bu góor sët bu góor mooy wecc sa doom la mu daa doon lay doon ku mu daa tee doon it moom doom bu góor ba tey sët bu góor dina la tey doon yiir yiir mooy tey doon rek loolu la bëgg a wax ci yiir gi ku doom bu góor daan yiir rek tey ko doon rek sët bu góor dina ko def ba tey doona bi lépp ñoo ko bokk wa ñuy raasul binti doona doom bu jigéen alwaahidati bu di benn ak nisfu mooy genn wàll ga walis na tey ni ñaar ak tulisaani mooy ñaari sulus fa in kasal na ndem bari nañu lam yu sat na defu leen dolli xàlla sulusay na ci ñaari sulus ña sooy am dara maanaam ku faatu bàyyi benn doom bu jigéen dong dong kon ndegam moom kenn dong la góor wétliwu ko jigéen wétliwu ko kon genn wàll lay am alal ja boo ko defee ñaari xaaj benn ba lay teggi bu nekkee dafa bàyyi ay doomu jigéen yi mat ñaar mbaa ñu ëpp ko ne waaye góor raxu ca dañ leen di boole sulusaani ñaari ceer ñaari ceer mooy boo defee alal ñetti xaaj ñaari xaaj na mooy sulusaani loo def ñetti xaaj rek benn xaaj bu nekk sulus la ba ca boole ñaar nag mooy doon sulusaani muy ñaari ceer ñaari ceer yi moom ngay boole doomu jigéen ya mat ñaar mbaa ñu ëpp ko te góor raxu ca buñ ko séddoo lañ ca yemoo képp nag lu ñu bari bari nag kenn du leen yokkal dara ci ñaari ceer yooye wabaratul ibni doom bu jigéen doom bu góor kal binti ni mel doom bu jigéen digg isaalam takku ndéem amut bintum doom bu jigéen digg ba tey nee na bu fekkee amoo doom bu jigéen boo jural sa bopp kon sësut bu jigéen bi nga xam ne sa doom bu góor a ko jur mooy wàcc sa doom bu jigéen nga xam ne bu dee benn am genn wàll bu dee ñaar ñu boole leen suñu saani mbaam ñu ëppee ñaar te fekk góor raxu ca bu ca góor raxoon ñu seddoo góor ñaar jigéen benn wa kasaalika naka noonu moo tax mu ne bu dee mbooloo wa kasaalika naka noonu banaatu ay doomi jigéenam kal banaati ñu ngi mel ne ay doomi jigéen fii xaadamil banaati ci ñàkk ay doomi jigéen ba tey nee na bu fekkee amul ay doomi jigéen waaye am na ay sët yu jigéen kon sët yu jigéen yooyee ñooy wàcc ay doomi jigéenam fa in kaanat ndem am na ibnatun doom bu jigéen digg woo bu na tubb nin ak doom bu jigéen doom bu góor fali ibnati ñeel doom bu jigéen digg ba ak nis fu genn wàll ga wala ibnatil ibni ñeel na doom bu jigéen doom bu góor ba asud asudus sudus tamaamu tullu say ni bay matuk ñaari ceer ya daa wax ni bu fekkee ne moom dafa bàyyi doom bu jigéen bi mu jural boppam ak sët bu jigéen bàyyi ko ci doom bu góor kon doom bu jigéen bi dëgg-dëgg mooy am genn wàll ka nga xam ne sët bu jigéenam la daal di am suddus mooy da ngay seen benn saam rek ci gàttal doom bu jigéen dëgg dëgg tegg ñett muy génn wàll sët bu jigéen tegg benn muy suddus su suñu si ak suddus tamit nag kon ñaari ceer ya génn ñaari ceeri alal ji génn ndax xam nga juróom benn boo ko doon seetli ñett kenn ku ne ñaar lay am kon deux mooy suñu sut juróom benn boo defee quatre nag kon ñaari suñu si génn na te bu doom bu jigéen teggee ñett sut bu jigéen tegg benn kon kaat yi génn loolu moo tax mu ne tamaamu tullu say ni xam ne kon benn sulus moo fa des na ñu xool ba xam ku ko war a fab ci way doom wa in kafarat ndem bari na banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor ba lam ñu sot na defu leen dolli xalaa dalika suddusi ci boo bëgg suddus chey an dara in lam yokku ndem nekkut maaxu na di ànd ñoom dakarum góor sët yu jigéen ya bàyyi ko ci doom bu góor lu ñu bàyyi bari rek suddus boobee lañ leen jox ñu bokk ko waaye kenn leen ci yokkal dara bu fekkee am ñoo góor bu fekkee am nañu góor rek dañ jël si la des seddoo ko góor ñaar jigéen benn wama la nga xam ne rek baq ya des na lil xasabati ñeel na way asabaal ña way asabaal ña mooy ñuy xaaru des waaw mel ne mbokkum góorum ndey ak baay ak mbokkum góor ci wàllu baay ak seen doom ak baay bu ndaw ak ñeme noonu ñëpp dañuy asabaal kon nag bu fekkee ne doom bu jigéen jël na génn wàll sët bu jigéen bu dee benn bu dee mbooloo jël sudus la des kon ñuy xaaru des ñoo ko war a moom wa in kaanat ndem nekk na albanaat doomu jigéen digg ya isnatay di ñaar lam yokkoon kon lu nekk li banaat ibni ñeel doomu jigéen doom bu góor ba cheun dara ilaa an yokkoon rek ba dafa nekk maa xu na di ànd ñoom axu mbokk bu góor fa yokkoon na tey nekk maa la nga xam ne baq ya des na bay na xu na ci seen diggante ñoom sët yu jigéen ya wa bay na ak diggante moom sët bu góor ba li dakari ñeel na góor ga mis lu xasdil unsayee ni kenn cerut ñaari jigéen dafa wax ne bu fekkoon doomu jigéen digg ya mat nañ ñaar taxastel sulusaani kon sët yu jigéen yi bu fekkee ànduñu góor dañuy ñàkk li ànd góor nag moom moo xam kenn la moo xam ëpp na kenn dañu jël ko la des la des daal mooy absolus kon moom la sët bu góor ba ak sët yu jigéen yi di jël seddoo ko góor ñaar jigéen benn wa kasaalika naka noone isaakaana dem nekk na daalika dëkkar googale góor tax taxun na ci seen suuf kaana kon nekk daalika loole bay na xoo diggante moom góor googee wa bay na xun ak diggante ñoom sët yu jigéen yi te daalika naka noone ba tey nee na bu fekkoon ni sax sët yu jigéen yi ñoom sët dong lañ dañoo jege ku góor ko nag moom nekk sëtaat xam ne kon ñoom bàjjal lañ ci moom koy du tee mën a ànd ñoom rek ñu jël la def seddoo ko góor ñaar jigéen benn kon daal bu fekkee ne sët yu jigéen yi dañoo gën a jege nekk sët rek sët bu góor bu mbaa bu ëppee benn itam moom nekk sëtaat nga xam ne kon ñoom jigéen ñi bàjjal lañ ci moom du tee mu ànd ñoom góoral leen bu dee kennoo moom góor gi bu ëppee kenn du tee ñu ànd jigéen ñi góoral leen ñu jël la fa des la des nag mooy sulus daal di koy séddoo góor ñaar jigéen benn wakka saalika naka noonee la wari sa doon te doon noon na banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor ba naxal ibnati ànd doom bu jigéen digg ba ak sudus a sudus wa tax taxun na te mu nekk ci seen suuf banaatut nin yeneen doomu jigéen doom bu góor naxaxun na yi ànd naag ñoom aw tax taxun na wala mu nekk ci seen suuf dëkkarum góor ba tey kaan ko nekk daalika loolee bay na xoo diggante góor ga wa bay na axawaat yi ak diggante ay mbokkam yu jigéenam awul wala ka nga xam ne foo ko xoo nekk na ci kawam min xamaat yi ci bàjjanam bu fekkoon ne nee na sët yi dañoo jaxasoo am na ci ñoo xam ne ñoo gën a jege sët dong lañu am na ci ñoo xam ne sëtaat lañu bu doom bi jigéen amee di benn dong jël genn wàll ñu gën a jege nekk rek sët kese yam ci day jigéen te amuñoo góor dañu daal jël sudus su boobaa comme boo ko defee juróom benn doom bi jigéen jël na ñett sëti kese yi gën a jege jël nañ benn muy sudus kon alal ji des na ñaar muy sulus léegi nag sutaat yooye nga xam ne ñoo fa nekk ñoom dañoo ànd ak góor góor ga mën naa nekk sutaat ne ñoom mën na leen a gën a suufe nga xam ne ñoom ay bàjjan lañu ci moom kon moom mu nekk sutaataat maanaam daal ñoom jigéen ñi ñu nekk sutaat moom góor ga ànd ak ñoom nag nekk sataataat kon ñoom ñooñu dañu daal di jël loolee des di ab sulus séddoo ko góor ñaar jigéen benn su fekkee nag moom góor ga daa yem ak ñoom ñi sataat loolu mooy kaanu daalika baynahu bayna axawaatihi wa bayna